asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi nuyu nañ leen xam naa ne nag nag namoon ngeen ñu lool waa jàppale leen suñu namm moo dàq seen namm foofu fas yéene leen bégal nag ci seen émission Zap série ni ñu koy defee saa su nekk ak seen série préférée yi ñu njëkkee ko ak série bu nga xam ne mooy belle-mère belle-mère nag jamono ji mi ngi def buzz belle-mère nekk histoire boo xam ne day relater li nga xam lépp loo xam ne dafa nekk ci biir néegu sëy diggante goro ak jabaru doomam ndax kii di taa bintaakat taxaw na temm pour tas sëyi gorom boobu nga xam ne mooy Xadi def na lu nekk nag mais amagul ndam Mamadou Lamine jamono ji may wax ak yéen mi ngi ci ay jafe-jafe ndax mi ngi bëgg a récupérer jabaram joj di xadi waaye yaayu xadikat nee na sëy bi tas na ginnaaw bi nga xamee ne Mamadou lamin ci boppam moo taxawoon ne xadi may naa la sa baat mer yóbbu ko seytaane mën ko taa binta nag mi ngi profité wu ci occasion bi sëriñoo sëriñ mu daw fa rien que pour Xadi bañ a ñibbisiwaat ci biir kër gi yàlla nañu yàlla musal ci yenn goro yi bu ñu jógee ci série boobu nga xam ne moom mooy belle-mère ñu jàll ci série bi nga xam ne mooy idole idole nag cette fois ci ñëw nañ ak saison cinq ak ay révélation yu doy waar ndax la jeune Malick bi ñu fàttalikoo saison 4 bi kat dañ ko faa rayoon ñu gis ne saison 5 bi dekkiwaat na Grand lay nak samp na ay ndëndum fasiyene bok ci jongante gogu di élection présidentielle Lima jaaxal kay moy Reysa elle se voit déjà première dame néna dig néna bir palais boobee kenn duko fa jitu mo Grand lay batay ci bir saison 5 bi idol Margot bu ñu ci ginnaw touti dafa avorté won gannaaw biñ ko agressé dem na ba découvrir né né Abdou Fall mo nekkoon derrière tout ça ba tax na moom Margot ak sœuram bob di Carole kidnappé nañ Abdou Fall di mbugalé num leen néxé

nañ xool fan la ñuy mujjee buñ jegee ci série boobu nga xam ne mooy idol ñu jàll ci série bi nga xam ne mooy pot et Marichou Pod et Marichou nag jamono ji moom tamit mu ngi yëngal gësëm ndax kat kii di Pod borom ñaari galon yi astafirullah boroom ñetti galon yi këram moo dàq suba la tabaski Pod daal engagé wu na neen day takk bëti ay li ma jaaxal mooy Eva la puissance mayu leen dara fi mu toll nii nee na lu ñu fa teg rek mu teggi ko waaye tamit bëti xale féroce tamit delluwul ginnaaw benn yoon pot na dama yakkar dafa bëgg dékkal dafa bëgg créer troisième guerre mondiale batay tey ci Pod et Chou Billy le chouchou des jeunes filles mom tam déterminé wu na fexé na ba récupérer doomu Marie Chou bob nga xamné ne franc-maçon yi satchon nañu ko may laaj digënté ñaari clan yi muy clan wu Billy ak clan wu franc-maçon yi nan lañ nara mujjé ak lu mu ci munti doon ñu diri ndank suñu chaise tek xaar fi lañu yema yem ak yéen yéen mbokki internet yi jox leen dox dajé très prochainement ci seen benen numéro Zap Série jaa ngeen jëf